ngeen jéggal ma ci audio bi dama tiit rek dama jaaxle danoo am naqar bu ñu dab léegi léegi léegi léegi madame Sonko mi nga xam ne moom moo ñu joxoon fauteuil yi nga xam ne Ousmane Sonko si la toogoon moom la borom sareet yi rey léegi léegi sa këram borom sareet yi nga xamante ne ñoo ko doon yóbbul fauteuil yi Ousmane Sonko toogoon ñoo ko agressé léegi rey ko ma bëggoon jigéenu pastif guddi na instant bi mënuñoo déranger kenn mais dañoo bëggoon bu subaa jàmm kenn ku nekk na nga fajaroo sa kër ñëw kër Massar